kubbul yow Serigne Touba. na ñëpp def ni nu màggal Cheikh Ahmadou Bamba jar na ko barke borom Touba nii rek. karama ki xar baax ak wilaaye ki mbooti xol ku leen masa am sol boo ku dul yow Serigne Touba. ku dul yow da daan sol boo ka d'accord rek gëm di alkee ka ka fàddi ka rey tuuma ku yor yi te làmboo Bamba yaa lewet li ngay mun te man koo faj Tuuba kuley sóoru daf lay reere borom Tuuba kuley sóoru daf lay reere boo geesu woon mu dee damul wumbo soodaanak ba yaa diina ak Tuuba sëñ Bamba ku koy tëkkalee ku xuus xam naa ne moo réere ay mbiram ne yaa tab xaw sun xudd seen leer xew Tuuba ku ci bañaa nag Bamba xam naa da ku xamul gumb yi ci leer ak gàtt yem naa Sëriñ Tuuba Moodu Mbàkke dangaa bay ah daggal nuy dagg Mbàkke yaa tax ñu am lu ne cërëy lay cëriy nga mbag maraaki xew Tuuba dangaa xare not waa réew mi yow jàpp ruuy jël nu jël nun alal ji su muy yaatu du jëm Touba danga fekk ñuy ñàkkee ka fandee ka lekk jox nga jox nu lekk taalaale jaajëf borom Touba danga tax ñu béw ñun ngir mbëtt nduuma doonoon ndawal nga jox nu tadaabiir ak juum jox Touba da nga fekk ñi ndomaay ki ay at ci néegi ñax nga taaxal nu jox nuy senge jaajëf borom borom Tuuba da nga fekkam sax ak wajal lan fi daa asanoo nga seexal nu jox ni junni est-ce que Serigne Touba borom Touba danga fekk ni maf ñoo ka xoo pëteel xëy nga jox ni wata kay fase yëbal mbar ba dem Touba sëpp sëriñum Sëriñ Malick Ba sin si yëkkatil say baara borom Touba borom Touba andil ngënu andil ngënu yow Cheikh Bamba kii maa tabax nga fi jàkkay daje jubul ma bu fekk Touba waaw góor ataaya ka fekk taalaale bawoon xamuñ ko woon daxaara xorom lañ daa baxal bërëxëy Tuuba Sëriñ Saaliwoo dem gaal gi duniyaa bi tey na jeex